waaw maa leen ni yónnee message bi pour ngeen xam ne adduna amul solo surtout jaaykatu jën yi bàyyi leen soxorante yi iñaanante yi di liggéeyante yi lépp fi ngeen di mujj mu ngi nii gis nga kii dañ ko enterré à debout taxaw day suuf si moo ko gedd ndax iñaan ndax soxor yéen ku am marché ngeen koy xeex ku am lu baax ngeen koy xeex adduna amul solo jaamu leen yàlla te yéenante jàmm te bàyyi luy bon yi ngeen di def di liggéeyente di yàqal nit ñi loolu ngeen dëkkee yéen sénégalais yi soppi leen seen àdduna soppeeku leen soppi leen te ngeen yor xol rafet ngeen bàyyi xol yi yi di yàqal nit ñi ah bugg leen ko am martaba bugg leen ko am lu baax bugg leen kuy xëy fajar kooku day am lu baax yow mënoo xëy di naan ataaya kii di xëy quatre di du matin di daw ba minuit ngeen bëgg su amee oto ngeen koy xeex su amee lu baax ngeen koy waxal góor jigéen su amee terali waajuróom ngeen koy soxore lu ne ngeen nekk ci maa ngi nii si biir almer yi nii xoolal lii rek ah sénégalais soppeeku leen yéen yi rafetul iñaan baaxul soxor baaxul bàyyi leen ko ngir yàlla man loolu laa leen di wax ku nekk na ak wërsëgam ah, leen yàlla